ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen balu ak di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi di cheikh rajab bokk ci weer yi suñu boroom tànn màggal leen nu war cee gën a góorgóorlu ci suñuy jaamu yàlla waaye di leen ndokkeel ci bis bu màgg bii di yowmul jumaa ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu jéggal ñu suñu bakkaar yépp di ko ñaan mu nangul ci suñu jaamu yàlla yépp di ko ñaan moom subhaanahu wa taala ci ak mbaaxam mu yàggal fi suñu kilifa gi Cheikh Mouhamadul Mountakha yokk ak wér ba àggale ay naalam ak yéeneem ci lu baax lépp ñu nekk ci weer woo xam ne nag saa bu ñu ci yegsee jullit yépp seen xel dina nekk ci xew-xew bu màgg muy al isra wal miraj muy kaawteef googu nga xam ne suñu boroom daf koo wane ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu doon kaawteef goo xam ne bokk na ci liy dëgëral pas-pasub jullit ndax jullit dafa war gëm kàttanul suñu boroom kattan goo xam ne amul dayo yàlla subhaanahu wa taala feddli na ay yooni yoon ci alquraanul karim ne moom dara tëwu ko inna allaha ala kulli shay'in qadir ñëw na ci alquran ay yoon yoon bu ñu seetloo li nga xam ne suñu borom feddali na ko kàttanam googu nga xam ne amul lenn lu ko tënk bari na lool am na ñu koy lim mën na fanweer lu topp yoo xam ne suñu boroom mi ngi tudd kàttanam googu nga xam ne amul ab dayo ci kàttanam googu nag ci la baaxe yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci xew-xew bii di rañaan mi nga xam ne rañaane na ko ko jële ko makkatal mukarrama yóbbu ko baytul maqdis ci genn guddi yéege ko ba ca péyam bu kawe ba déy ko fa lam ko fay déy wan ko lam ko fay wan loolee nag di xew-xew bu rëy boo xam ne jullit yëpp dañ ko war a gëm ndax dafa bokk ci kaawteef yi suñu borom subhanahu wa yi nga xam ne da koo jagleel yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax nu di ko fàttaliku waxtu wu nekk waaye it bu murit yëpp bu jullit yëpp maasee bokk xew-xew boobu waaye weer wi ñi nga xam ne ñooy njabootuk Serigne Touba radiyallahu anhu am ci geneen jagle mooy feeñuk Cheikh Mouhamadou Fadil radiyallahu taala anhu ci weer wii ci bis boobu kon moo tax ñu bëgg a dellu si ci xew-xew boobu fàttalente ci néew a néew ndax lu yaatu la waaye nag <clears throat> dañ ciy fàttalente rek ndax bis yu néewatee ñu yegsi ci xew-xew boobu muy suñ boroom subhanahu wa moom ci boppam moo nettalil boppam xew-xew bi ci rañaan mim ko rañaane jële ko màkka yóbbu ko baytil maqdis waaye moo junj it yéegal gim ko yéegal ba ca péyam bu sell ba suñu boroom dafa wax ne subhaana alladi asra bi abdihi laylan min almasjid alxaraami ila almasjid al aqsa alladi baarakna xawlahu min ayatina innahu huwa alsamiu albasir suñu boroom kon moo tànn barab yu sell yooyu jële yonent bi màkka <clears throat> ci genn guddi muy diggante boo xam ne ca jamono booba doxo dañuy wax ne ñaari weer <coughs> daana ko mat léeg lu yàgg la daan doon <coughs> yóbbu ko baytul maqdis ba mu fa demee xam nañ ne mooy barabu yonent yi alayhim salawatullahi wa salaamu suñ boroom teral ko fa mu jiite fa yonent yi julli ñaari ràkka suñu boroom doog koo yéege loola mi ngi koy junj ci suratu najmi wala qad ra'aahu nazlatan uxra inda sidratil muntaha indaha jannatul mawa is yaxsha sidrata ma yaxsha ma zaaxa albasaru wa ma laqad ra'a min ayaati rabbihi alkubra kon suñu boroom subhaanahu wa taala moom moo baaxe alayhi salaatu wassalaam yéege ko muy romb asamaan yi ni ñu koy nettalee asamaan ju nekk ba mu fa yéegee am na yonent bu mu fa giseel ak lu mu fa gis ba mu àgg fa suñu boroom subhaanahu wa taala ba fa jibril mën a yem suñu boroom àggale ko fa nga xam ne kenn mosu faa àgg mu wan ko fa ay kaawtéef yoo xam ne mosu ko wan kenn waaye jox ko fa loo xam ne lu màgg la bokk na ci lam ko fa jox mooy li nga xam ne ponk la ci diiney lislaam mooy julli mooy julli juróom nga xam ne <clears throat> juróom fukki julli la woon waaye seydina Musa alayhi salaam moo doon laabire yonent bi ne ko mu di ko wàññilu ba mu des juróom waaye suñu borom ci ak mbaaxam juróom yooyee mu def ko muy bu ci nekk di tolloog fukk yor darajey fukk bu ko defee day dañuy daal di am yoolub juróom fukk yooye nga xam ne moom la suñu borom subhaanahu wa taala njëkkoon a santaane loole nag di xew-xew boo xam ne Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ci ay mbindam yitte woon na ko lool boo demee ci jazbul qulub indi na ko ci indin woo xam ne yaatu la bokk na ca lam ca wax salli ala saarin sama فوق البراق للسما محمد وكرما بحزبه وسلم قد بات يخرق الطباق في الليل قاصد وفاق والانبياء باتفاق لاقوه بالتكرم واحترموا وقدموا وكرموا واستسلموا تواضعا وعزموا لقدره المحترم kon ni ko suñu boroom rañaane ba mu yóbbu ko baytul maqdis maqdis ak nako ko yonent yi teertoo teeral ko ñoom ñépp warmaal ko suñ boroom jiital ko ñoom ñépp ñu jiital ko màggal ko màggal dayo bi nga xam ne moom la ko yàlla jox ba mu fa jógee mu fàddu moo tax mu wax ne fa gaaba anhum wartaqa fawqa al buraaqi li liqaa xabibihi waxtaraqa xujbal ilaahi al munimi summa li daarihim thana wa qad xawaa kulla muna minhu wa azabal ana wa jaalibaati niqami kon ci guddi googu la yéeg fàddu ànd ak ba wuññi kiiraay ko kiiraay yi asamaan yépp ba mu àgg ci boroomam wëlbatikuwaat dellusiwaat ci këram suñ boroom jox ko fa ay xéewal yu yaatoo yaatu waaye nag bu mu nekkoon naqar yi ko yim dund dund suñu borom teggil ko ko lépp ci xew-xew boobu ndax xam nañ ne lu jiitu xew-xew boobu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dundu na ay jafe-jafe yu metti ndax xam nañ ne <clears throat> yéefari màkka yi sonaloon nañ lool yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak ñi gëmoon yàlla daan leen mettital daan dogoog ñoom daan di leen teg lu nekk di leen bundu xatal di leen xatal di leen lor mboolem xeeti lor yi waaye loola amoon na lu ko woyefal ndax abu taalib mi nga xam ne baayam bu ndaw la daana ko taxawu boroom daraja la woon ci Quraysh wegoon nañ ko lool ba tax na fenn fi daawuñ fa àgg waaye it soxnaam si nga xam ne saa buñ ko mosaa teg ay nattu bu ñëwee mu defal ko daan ko dimbali ci alalam ak ci léppam muy sayyidatuna Xadija ñoom ñëpp ñoom ñaar suñu borom da leen a jël ci diggante boo xam ne bu sorewut la yonent bi xatoon lool ak jullit yi xam nañ ne ci la demee woon Taif xew-xew Taif boobu nga xam ne jàppoon na ne bu demee dinañ ko fat yiir ko waaye ba mu demee nañ ko gàttandoo gàttandoo koo xam ne àndut ak teggin waaye àndut ak warma waaye gàttandu goo xam ne metti na lool ci koo xam ne daa jóg ngir ku ko fat ku ko làq yemuñu ca ñu yónnee ay ndaw ca waa Quraysh di leen wax ne yonent bi dafay ñëwoon di làqatu si waaye ba mu yegsee nañ ko teertoo rek boole kook ay goneek ñoo xam ne daanaka seen xel matut ñu di ko sànni ay doj ba ay tànkam di nàcc mu doon loo xam ne lu tiis la woon ba ñaan gu nga xam ne <coughs> ñu bari ci boroom xam-xami xadiis yi saxal nañ ko <coughs> muy ba muy ñaan <coughs> suñu boroom ñaan gu daw yaram allahumma ilayka ashku dufa quwati wa qillata xiilati wa hawaani ala nnaas arxama arrahimin anta arxamu arrahimin ila man takiluni ila aduwin yatajahamuni aw ila qaribin mallaktahu amri in lam takun xadbaana alayya fala ubali xayra anna aafiyataka aw sauli muy ñaan gu daw yaram gu yërëmtalu nga xam ne day jàmbat suñu borom subhanahu wa taala néew gi nga xam ne néew na ko doole waaye ñàkk gi nga xam ne ñàkk na ko ay pexe ak doyadi gi nga xam ne doyadi na ko ci nit ñi ñu di ko sànni ay doj di ko euh, topp ci ginnaawam ko ñaawal waaye muy wax ak suñu boroom xam ne moom mooy boroom yërmande di ko wan ne ko nag waaye boo ma merewul rek li li may daj lépp duma ko yëg waaye nag sa jàmm moo ma gën a moo gën a yaatu ci man kon muy diggante bu metti bu xat ci diggante boobu kon nga xam ne dañ koy tudde sax amul xusn muy atum njàqare ma ndax at la moo xam ne mu tiis la woon ci yonent bi alayhi salaatu mu tiis la woon ci jullit yépp waaye nag suñu boroom it da ko doon waajal rek waajtaay woo xam ne wan na ko ci al isra wal miraaj daraja ji nga xam ne jox na ko ko ak cër bi nga xam ne am na ko ba tax fàtteloo na ko coono yi nga xam ne euh, sonnoon na ko kon xew-xew boobu dëfal la ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye wan jullit yit ne suñ boroom mi ngi ànd ak ñoom waaye nattu la it ci pas-pas yi nga xam ne ñoo àndoon ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ku ne xam na ne xew-xew boobu ku mu fekkutoon sa pas-pas dëgër mën nga caa sikki sàkka ndax luñ miinutoon diggante boo xam ne buñ ko daan dox dañ fay day yàgg lool yonent bi yeewu ne wax ne dem naa jóge naa màkka dem baytul maqdis suma boroom yóbbu ma yéege mu ba fa moom loola nattu pas-pasib jullit ñi nga xam ne ñoo war a ànd ak bi ci liggéey bu réy boobu mu doon liggéey ak gàddaay gi nga xam ne waroon nañ ko gàddaay jóge màkka jëmma madina ndax taxawal diine ca Madina bàyyi sa njaboot bàyyi sa am-am bàyyi sa lépp gàddaay ngir yàlla ku sa pas-pas dëgërul boo ca bokkee it la mu laaj doo ko jooxe mu mel ne isra wal mi'raj suñ borom da ci doon nattu ngir seppi ñi nga xam ne ngir xam ñi nga xam ne seen pas-pas amul benn déng-déng bu ci nekk ci gëm-gim-gim yonent bi ne lépp lu mu wax rek dëgg la lépp loom wax rek suñu boroom ko wax subhaanahu wa taala ndax wax nañ ne sayidna bokkat bi nga xam ne dafa dëggaloon yonente bi ba ñu tuddoon ko as-siddiq ba ko yóne bañ ko waxee ne ko ah, sa mbokk mi day waxati na bam laajee ñu wax ko ne ko moom day nee na reñaane nañ ko màkk yóbbu ko baytul maqdis ci genn guddi mu ne bu dee moo ko wax rek dëgg la xam ne gëm-gëm boobu mu wane ak pas boobu mu wane day wane dëgër koo xam ne dëgër na ko ci diineem dëgër gum gum gum dëgër ci pas-pasam waaye li ñuy gise ci xew-xew bu màgg boobu it mooy lislaam nekk gi mu nekk diine ju yàlla tànn yàlla moo tànn lislaam jiital ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam nekk ki mujj ci yonente yi alayhimu salaam waaye nekk koo xam ne darajaam moo gën a kawe ci yonente yi alayhimu salaam ndax jiital gi nga xam ne yàlla jiital na ko ci yonente yi loolu ab junj la buy wane ne kon yonente bi kat ci àdduna bépp lañ ko yónni kon wooteem bi dafa matal ni ko alquran waxe ne ko ci àdduna bépp yërmande nga ci àdduna bépp yërmande nga ci doomu aadama yépp yónni gi ma la yónni yërmande la ci àdduna bépp kon xeetu muhammad sallallahu alayhi wa nekk xeet wi yàlla tànn ngir ñu war a taxawee diine li des ci jamono wa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan li takunu shuhada ala nnaasi wa yakuna rasulu alaykum shahida kon loolu li muy wane rek mooy lislaam mooy kàddug yàlla gu mujj mooy risala bi nga xam ne moom la yàlla yónni ci mbooleem doomu aadama ndax mbooleem yónnent bu mos a ñëw suñ boroom benn dalaa yónni ci aw xeet wala mu yónni la ci jamono joo xam ne ba jamono jo weesoo dafa indiwaat beneen yónnent waaye muhammad alayhi salaatu wasalaam nekk ki mujj ci yónnent yi li ko yàlla yónni nekk lu man suuxal mboolem la ko jiitu woon ah, lam làmboo ko téeréem bi nekk téere bi nga xam ne moo ëmb téere yi ko ya ko jiitu woon yépp muy alquranul karim waaye xew-xew bii kat gisewaale nañ ci màggug lii di julli nga xam ne mooy <coughs> ponk ginnaaw shahaada ginnaaw seede ginnaaw gëm gi nit ki gëm suñu borom subhanahu wa taala seede ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàllaa ko yónni julli mooy ponk bi gën a màgg nga xam ne ndigal yi yàlla jox yonent bi alayhi salaam ci xeeti jaamu yàlla yépp dafa yabal jibril jibril ñëw indil ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye julli moom daf ko woo ba fa moom mu joxal ko ko boppam loola kon day wane solo si nga xam ne julli am na ko ak ni nga xam ne màgge na ko ci biir lislaam te loola yonent bi ci boppam firndeel na ko ci barab yu baree baree bari fuñ ko laaje lan mooy jëf jan jëf moo gën ci jëf yi dana bokk ci la muy tudd mooy julli xadis ibni masud abdullah ibni masud radiallahu anhu nee na man maa laaj yonente bi alayhi salatu ne ko ban ci jëf yi moo gën ayul amali afdalu yonente bi daat koy tontu ne ko julli ci waxtoom asalaatu li waqtiha ma ne ko ak lan mu ne birrul waalidayni topp sa ñaari waajur ma ne ko ak lan mu ne ma al aljihaadu fi sabilillah mooy jihaad ci yoon yàlla kon loolu yi dañ ci dégge kon màgg gi nga xam ne julli màgg na ko nekk jëf ji gën ci jëf yi waaye fii addis bi danañ ci gise ndekete fonk ay ñaari waajur topp seen ndigal lu rëy la jëf ju màgg la joo xam ne jullit bu nekk war na ko bàyyi xel ndax lépp loo xam ne lu ñuy méngale la ak julli di ko dendale ak jihaad ci yoonu yàlla jëf ju màgg la ndax ku ne xam ne ni jihaad ci yoon yàlla moom ku ca nekk ba suñu boroom moom la àjjana rek mooy sa wàccuwaay àjjana la suñu la suñu boroom di ba ngay xeppee loolu nag lu màgg la lu rëy loo xam ne luñ ko dendal luñ ko dendaleel kenn ku nekk war na koo war na ko bàyyi xel màggug julli ñu gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li mu ci wax ci njariñ yi nga xam ne fonk julli ci waxtu am na ko ak taqoo taxawal julli am na ko lu baree bari la waaye bokk na ca julli dafay far ay ñaawteef ay bàkkaar lumu mu rëy rëy boo sàmmonteeg julli mën na la koo faral abu hurayrata radiallahu anhu wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ne julli juróom ak ajjuma ba ca ajjuma ji ca topp ak diggante weeru koor ba weer wa delsi dañuy far ay bakkaar ya nekk ci seen diggante su fekkee ne nit ki moytu na kabaayir yi muy bàkkaar yu mag yi nga xam ne moom nit ki bu ko tuubul suñu borom du ko ko jéggal mel ne faat bakkan mel ne jëfandikoo sàngara lu mel ne njaalo wala yaasu billah ak yeneen bakkaar yu màgg yooyu nga xam ne ku ko def moom fokk nga tuub ko waaye bakkaar yi nga xam ne nit ki dana koy def muy ay rëcc-rëcc yi nga xam ne du ko yëg yooyu nga xam ne suñ bu dee bu fonkee julli diggante waxtu ak ju julleeg moroom ja suñ borom mën na ko kafaaral njuumte ak rëcc-rëcc yam yam fay def